wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat di dajeeg yéen ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci minbarul islaam suñu mbokk Cheikh Tidiane Diallo moo nekk ci e, technique bi e, seen mbokk Ibrahim Khalil Lo moo nekk ci micro bi ànd ak docteur Mohamed Ahmed Lo ni ngeen ko xamee lu jiitu koor gi tàmbale woon nañ ak docteur ay bind yoo xam ne mi ngi jëmoon ci qawaid fi maarifatil bida muy ay tënk ay régal yoo xam ne des ci sukkandiku mën a xàmmee lan moo doon bida jotoon nañ cee def ñeenti émission yàlla dogal koor gi egsi am ay waxtaan yoo xam ne waras na ko ko jagleel moom koor gi fekk itam moom itam mu amoon tukki bu mu waroon a def waaye ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala dellu si na ci jàmm waxtaan yi ñu doon def ci koor gi itam yàlla def na mu egg ñu ngi ñaan yàlla nangul lu jaamu yàlla yépp kon moo tax niñ leen ko digge woon te di ko wolof di waxe digge bor la moo tax ñu bëgg continuer ci bind yooyu moo tax mu delsiwaat fi tey fas yéene sof rek ca fa nga xam ne fa la toll woon tënk yooyu limoon na ko ba limoon ci fukk ak juróom-ñett tey mu war a tàmbalee ci tomb fukk bi ak juróom-ñeent ñu ngi jéglu itam tardement bi xaw a am ci waxtu wi incha allah euh, jàmm rek la woon kon ñu jox ko moom docteur mu continuer ci bind yooyu nga xam ne moom la ñu tàmbali woon bismillah bismillahi arrahmani irrahim in alhamdulillah nahmaduhu wa nastacinuhu wa nastaghfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa sayyiaati acmalina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 Euh, gannaaw boo xamee ne taxaw nañ comme ni ko Cheikh Ibrahim waxee ngir itte ju mag jooju nga xam ne moo jaaroon ci diggante bi di weeru koor te weer la woo xam ne dafa am ay xaq kon noo ngi sunt suñu borom tabaraka wa di ñaan bépp xeetu jaamu yàlla woo xam ne ab jullit def na ko ci weer wi muy koor wala muy julli suñ borom tabaraka wa nangu ko te ful ko itam comme ni mu ko waxee ñu daal di dugg rek kon ci biir waxtaan wi eh, maa ngi defoon ne sax ci fukk ak juróom-ñetteel bi ci lañ yem waaye yees na loolu tuuti. Mhm. ci fukkeel bi ak juróom-benn ci lañ war a tàmbalee. incha allah. Mhm. Mhm. tënk boobu dafay wax ne kullu tacassubin li geyri kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bidcatun wa ma adda ilayhi kadalik li ñuy wax fanatisme muy farfarloo bépp farfarloo boo xam ne nekkul di dëgëral téereb sun boroom tabaraka wa taala muy alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam booba farfarloo farfarloo biddaa la lépp loo xam ne juddoo na ci biir farfarloo googa it biddaa rek lay mën a indi kon daal farfarloo bu dee am téere bi yàlla moo ko war a waral ak si yonent bi sallallahu alayhi wa amut leneen lu ñu war a farfarloo moo tax boroom xam-xam bu mag ibnu taymiya raximahullahu taala day wax ne wala yansibu lahum kalaaman yuwaali alayhi wa yuaadi gayra kalaamillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma ajmaat alayhi daganul ci kenn muy tër ay wax yoo xam ne moom moo ko tër nekk képp ku ànd ak man ci wax ji ma ànd ak yow ku tàggoog man ci wax ji tàggoona ma yow nee na lu dul wax jooje su fekkee ne waxi yàlla la ak waxi yonentam loolu rek les sañ dajaloo wala loo xam ne xeetu lislaam muy boroom xam-xami lislaam yi jàpp ci sunna ñoo ca dajoo ñoo ca dajaloo su boobaa loola faw day am cosaan lu sukkandiku ci alquran ak sunna loolu moo tax bu boobaa loolu sañes na caa woote eh, sañes na caa jafandu mu teg ci ne bal hada min fi'li ahli albidaa alladina yansibuuna lahum shaxsan aw kalaaman yufarriquuna bihi bayna al umma yuwaaluuna bihi ala dalika alkalaam aw tilka alnisba wa yuaaduun nee na ñiy faral di def loolu kay jël ay wax wala jëmm di ca woote nee na loolu mooy jëfi ñi nga xam ne dañoo nekk ci biddaa nee na ñooñu ñooy jël jëmm wala ñu jël ay wax tër ko ne képp koo xam ne danga ànd ak noonu ci lii ngay ànd ak noon nee na loolu luy tàqale xeet bi la e, ndax àndandoo ak tàggoo ci waxi yàlla ak waxi yonentam sallallahu alayhi wa sallam rek la war a am loolu moo tax muawiyatu bnu abi sufyaan radiallahu taala an muy saxaabi bu mag eh, mook baayam sax anhuma ah abdulaay dafa laaj abdulaay ibnu abbas radiallahu anhuma ne ko anta ala millati ali aw ala millati usmaan ndax yow yaa ngi jàpp ci yoonu ali wala yoonu usmaan xam nga ñàkkul ay juuyoo yu amoon ci diggante boobu Euh, rawatina ña askanoo ci ñoom am nag juyoo gu amoon seen diggante Muawiya laaj Abdullah ibnu Abbas radiallahu anhum ne ko ndax yow dangaa ànd ak Ali wala dangaa ànd ak Usmaan mu ne ko lastu ala millati aliyin wala millati Usmaan bal ana ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko man nekkuma ci yoonu Ali nekkuma ci yoonu Usmaan waaye ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa nekk kon àndandoo ak farfarloo ak woote ci dara loola ci alquran la war a doon wala ci sunna waaye warta nekk wax joo xam ne juñ tëral suñ bopp la di ca woote wala mu doon loo xam ne jëmm la ñuy jël ni képp kuy ànd ak noonu na ànd ak noonu ci diw kuy tàggook noonu tàggoog noonu ci diw loolu mooy kon euh, fukkeel bi ak juróom-benn fukkeelu tënk bi ak juróom-ñaar moo di ne alxuruju ala thawaabit alislaamiyati almaarufa bidaa dafa am tëriin yoo xam ne lislaam daf ko tër te du soppiku bu mukk képp koo xam ne génn nga tëriin woowa dangay daal di tàbbi ci bidaa lu mel ne li ñuy tudde alxuduudu sharciya suñ bëggoon a joxe misaal muy géttan yi nga xam ne sharia moo ko tër ku def nangam nangam war na ko ku def nangam nangam war na ko ku rey nit nañ ko rey ku sàcc nañ dagg loxoom ku def nangam tëriin yooyu ay sawaabit lañ koy tuddee yoo xam ne du soppi loolu moo tax kon sawaabit ñu bari dañoo defee ni ci wàllu pas rek la aju waaye tëriinu lislaam bépp woo xam ne aw tëriin wum tër la day daal di nekk lu sax lu munta soppi ko tëriin yooyu képp koo xam ne dikk na soppi ko waxuma la mooy yàlla gam def waaye mooy yàlla googu daf ciy dolliku ne biddaa la itam masalan ku ñëwoon fekk géttan bi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moom la teg ci kaw ab sàcc nga joxe atte boo xam ne mooy yées booba comme ne nañ ko tëj wala nga jox atte bu ko gën a tar ne nañ ko rey bu mu ci mën a doon kooku soppi lay doon su boobaa ak mooy yàlla la ànd ak mooy yàlla gi mu doon itam euh, biddaa lay doon loolu moo tax al imaam ibnu rajab ci téeréem bu baax boobu ñuy wax jaamiul ulum wal xikam leeral na tomb boobu ak leeral gu yaatoo yaatu ñi nga xam ne eh, ñuy sàkku xam-xam lañ doon ay ndongo yu mën a yër suñ ci delloo danañ gis ay misaal yu bare bari yoo xam ne teg na ko waaye gàttal gi moo tax duñ ci mën a xuus ak xuus gu bari fukkeelu tënk bi ak juróom-ñett moo di mushaabaxatu alkaafirina fi ma kaana min xasaaisi ibadatihim aw aadatihim bidaa nuroo ak yéefar yi roy leen ci seen yi nga xam ne dañ koo jagoo ci seeni jaamu yàlla wala seeni aada yow jullit bi nga jël ko di leen ca roy kooku biddaa la ànd ak ne mooy yàlla la biddaa la loolu moo tax alxaafis aldahabi ci téereem bu am solo bu mu tuddee at tamassuk bi sunan day wax ne amma mushaabahatu ahli dimmati fi lmilaadi wa nayruuz fa bidaatun waxisha toppandoo ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nekk ci biir déndub lislaam lislaam di leen àtte ñooñu la ñu tudde ahlu zimma yahuud yi ak nasaraan yi nga xam ne dañuy dund ci biir réewum lislaam ci seen feet yi nga xam ne dañ koy def nee na kooku biddaa la biddaa bu rafle biddaa bu ñàkk solo bu doyadi la ndax lu toll ne lislaam nga am ko sam xel wala sab gis-gis tolluwut fenn lu dul di roy koo xam ne nekkul ci biir lislaam kooku ni mu ko melale bidaatun waxisha waaye nag faaw ñu xam ne am na mbir yu bari yoo xam ne léeg-léeg nit ñi dañuy defe ne dafa tàbbi ci nuru roy yéefar yi te fekk tàbbiwu ca ñetti tomb yi may tudd bokkut ci loolu maanaam almashruu fi shariatayni su fekkee ne mbir mi dañ koo daganal ci diine joo xam ne moo jiitu diine lislaam lislaam ñëw ñi dagganalaat ko ci lislaam su boobaa kenn du ko tudde roy yéefar yi lu mel ne woor bisu ashura muy bisu fukki fan ci weer wi ñuy faral di tudde tamxarit mooy weeru muharram woor ko dafa amoon ca diine ya jiitu bi lislaam dikkee mu daganal ko kon mu santaane ko kon woor ko kenn du wax ne roy yéefar la maa kaana mashruan lana fa axadu bihi loo xam ne lislaam daf ko santaane woon te nekkul woon ci seen diine waaye ñiy dox ba mu yàgg ñu jekki-jekki jël ko lu mel ni chiif yi tey boo leen gisee dañuy guddal seeni sikkim dañ koy yar ànd ak ne loolu lu sax la ci lislaam loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo digle te ñoom xamuñu woon loolu li nekkoon ci seen diine mooy dañ doon guddal seeni mustaas di wat seeni sikkim waaye dañoo dem ba jëmmi jamono euh, ci seen téere bi ñuy wax Talmud nga xam ne ñoo ko bindal seen bopp ci lañ tëree atte boobu mu doon loo xam ne ni koy tudde mooy roy jullit yi kon duñ dem ba jëmmi jamono ñu ne ah kon kat kuy guddal ab sikkim yow léegi yaxut ba nga cay roy wala yaa ngi jéem a nuru ak ñoom te yonent bi tere na ku leen kon nag wat sikkim mooy la jaadu hmm. su ko defee bu boobaa kooku njuumte lay doon ndax dafa doon lu dagan lu sharia santaane ñoom ñoo ci roy si jullit yi waaye du jullit yi ñoom ñoo leen ca roy hmm. euh, ñetteel bi maa laysa min ixtisaasaatihim euh, ka sinaati almawjuda wal ashyaa allati la taqumu alxayaatu illa biha bokk ci itam mbir yoo xam ne jagowuñ ko du ci seen diine du ci seeni feet du ci seeni aada seeni cosaan mbir yu aju ci tàggat suuf si ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci loo xam ne doomu aadama mën na cee liggéey di ko jariñoo ci ak dundam yu mel ni yii ñuy fent tey ci ay jumtuwaay di ko defar donte yéefar yi ñoo ci raw jullit yi itam jullit yi jariñu ca yooya muy matériel yi nga xam ne moo am tey eh, jariñu ca di su ko tuddee roy yéefar ndaxte doonut loo xam ne ñoo ko moom bokkul ci seen i ixtisaasaat du seen yëf maanaam borom bi tabaraka wa moo tàggatal doomu aadama li ci suuf eh, xanaa li jaadu kay <coughs> mooy jullit yi ñoom itam war nañoo góorlu fexe ba googu fànn kenn du leen ci raw ni ñu war a góorgóorloo ba sàmmoonte ak seen diine noonu la ñu war a góorgóorlu it ba xam seen àdduna waaye suñ tardé ci seen àdduna bay jariñu ci anam googu ca Euh, la jóge ci yéefar yi it kooku kenn du ko tudde euh, roy yéefar yi walla nuuru nuuru lu leen su fekkee ne dañoo jël la ca am njariñ rek jariñoo ko euh, la nga xam ne luy lor lañu bàyyi ko kon ci gàttal kooku mooy tombu roy roy yéefar yi ak noo xamee ne mën na ko indi ci biddaa kon nag loolu ci ngay dégg ne lañ junjoon ci gannaaw ne biddaa bi du caagi ni faw boroom daf ciy jublu rek ak jaamu yàlla maanaam léeg-léeg du doon loo xam ne lu muy jublu ak jaamu yàlla la su fekkee ne roy yéefar yi la ci la ci jublu maanaam jëfee na jëf joo xam ne roy yéefar yi rek la mën a doon comme lu aju ci seeni jaamu yàlla ñoom wala seeni aada mu jël ko su boobaa bi daa lay doon doonte moom jubluwu ci sax jaamu yàlla fukkeel bi ak juróom-ñeent moo di al ittiyaanu bi cheyin min aamaali al jahiliya allati lam tushra fi l islaami bidaa lépp loo xam ne dafa doon dafa bokkoon ci jëfi ceddo ya ña jiitu woon lislaam xeet wu mën a doon nag xeet wu mën a doon amoon nañ ak ceddoo sa diir am na lu ñu doon dund loo xam ne lislaam ak séegut fa ñoom loola nag bu ñu yeexee rek day am ay desit yu ca des lislaam bu ñëwee dafa war a raxas lépp ba mu set mu door a taxaw waaye su fekkee ne am na ay desit yoo xam ne ca ceddo ga la dese woon mu dikk jaxasoo ak lislaam kon yooye yëf jëfe ko ci boppam bi daa lay tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis boo xam ne muslim génne na ko mu ne arbaun fi ummati min amril jaahiliya laa yatrukuunahun ñeenti mbir a ngi ci sama xeet wi yoo xam ne ci ceddo ga jóge mu ne nag te duñ ko bàyyi ba mukk yooyu mooy lan mu ne alfaxru bil axsaab maanaam damoo sa askan defe ne yow yaa gën keneen ku dul yow suñ waxee nga ne man nàngam laa man nàngam laa kuy nàngam mooy sama mbokk waaye ñi ca des ñoo ma gën a suufe loolu ci caddo la bokk bokkul ci lislaam wattaanu fil ansaab ñoom ñaar ñooy ànd damoo saw askan ak jam askanu keneen ñetteel ba mu ne al istisqaau bi wal istisqaau bin nujum maanaam jàpp ne taw yi wàcc am na ay biddiw wala xeeti ay dëllooñ yoo xam ne ñoom ñoo koy wàcce loolu ci boppam ci xeeti ak caddo la bokk Euh, loolu nag jubluwuñ ci pour nit ki tegtaloo xam ne nangam su xewee maanaam biddiw sangam saa bu ñu ko masaan si léegi asamaan si bi lu mel noonu taxul ñuy wax waaye jàpp ne biddiw ba ca boppam mooy taw bi loolu moo tax ñuy wax mu teg ca ne wan niyaaxa ak di jooy ku faatu jooy yoo xam ne day ànd ak yuux yuux yëkkati sa baat wala ngay xotti say sér wala ngay xëpp sa bopp suuf wala nga naan alkuna di wax wax yoo xam ne euh, waxi caalit la kooku moom la ñuy tudde niyaaxa loolu itam nee na ci ceddo ga la bokk euh, lislaam fi la ko fekkoon waaye yooyu yépp nee na lu dëgër ci xeet wi la ngir ñu bàyyi ko lu jafe la kon loolu dañ ci déggee ne am na ay mbir yoo xam ne dafa day royaatal ci xeet wu mu mën a doon xeet wu mu mën a doon jóge ci seenu ceddo donte dugg nañ ci lislaam bu ñu wattuwut loola dana leen topp loolu moo tax Abu Bakar Siddiq radiallahu taala anhu benn bis dafa ñëw Euh, fisian seen soxna suñuy wax Zeynab mu bokk ci giir gu ñuy wax Ahmas mu jis nit ñi di waxtaan mu ne ci rek du wax mu ne kii lu tax du wax ñu ne ko ah, kii kat day aj waaye dafa nisar ne day aj te du wax dafa fas yéene ne cell rek ba ba ñuy aj ba noppi abu bakar siddiq radiallahu taala anhu daal ne ko takallami fa in hada la yaxil hada min amali aljaahiliya mu ne ko waxal lii nga def daganut maanaam aj ne du ma wax ne ko lii ci ceddo ga la bokk maanaam bokkul ci lislaam bi mu waxee loolu ndaw si ne ko yow yaay kan mu ne ko man dey kenn nit laa koo xam ne ci muhaajiroon yi laa bokk ñu gàddaaye màkk ñëw Madina mu ne ko kan ci muhaajiroon yi mu ne ko ci Quraysh laa bokk giir Quraysh mu ne ko ci ban Quraysh mu ne ko yow de ku mën a laaj nga man maay Abu Bakar Siddiq hmm. Euh, riwaay boobu Buxaari euh, indi na ko kon kooku li ñu la fi bëgg a wax moo di Abubakar As-Siddiq bi muy tere jigéen ji loolu yëgalaale na ko ne loolu ci ak ceddo la bokk foofu li nga fi déggee moo di kon am na yëfi jaahiliya yoo xam ne day royaatal di tàbbi ci biir xeetu lislaam bu ñu yeexee mu nekk ci seen biir biir diine te duñ ko yëg loolu nag buñ seetloo yu baree bare bari ci yu ñuy dund danañ gis ay yëf yëfaan yoo xam ne foofu lay foofu lay dugg masalan buñ xooloon li nit ñi di dund ci wut bis boo xam ne bis bi dagan nañu tukki bis hmm. sàngam daganul ñu tukki hmm. loolu du lu ñuy laayal ci lislaam bis sàngam sax léeg-léeg nga gis ko la ne bis sàngam danañ ci bale kër bis sàngam diisu ci bale kër hmm. bis sàngam danañ ci sangu bis sàngam diisu ci sangu bis sàngam danañ ci takk soxna bis sàngam su ci takk soxna yooyu yépp a yëf la yoo xam ne jógewut ci lislaam waaye ca ci caddu ga la jóge watu sax dañ koy wutal bis ak sangu te yooyu boo seetloo léeg-léeg nañ ñu def ci yoo xam ne ay contradiction yu rëy la te ko seetlu ndax ki lay wax ne bis sàngam kenn du ko sangu kenn du ko sangu bis boobu su ci ab liir juddoo nañ koy def faw des na ko sang faaw ñu sang ko te liir bi moom bu ñu fàtte ne bu fekkee ne nit ñaa ngi takki gàllaaj ak a defi yëf moom yooyu takkagul gàllaaj su fekkee ne loolu luy reye la moom kon euh, moom la war a gën a gaaw a gaaw a lor mm-hmm. waaye yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu royaatal la mm-hmm. jóge jóge ca euh, ceddo ga mm-hmm. tab bi ci biir xeet bi ñu defe ni ci lislaam la bokk te fekk bokkul ci lislaam mm-hmm. euh, yi jàll lépp ci ay tënk buñ ko seetloo mi ngi dugg ci euh, cosaanul ñetteel la mm-hmm. nañ ko tudde woon li nga xam ne mooy cosaani biddaa bi nga xam ne moo doon dëgër aw fit ci ay mbir yoo xam ne day yóbbe nit ki biddaa mm-hmm. yooyu jàll yépp ci la eh, bi nga xam ne mooy tënkub ñaar fukkeel bi moo di ida fuila ma huwa matlubun charan ala wajhin yuhimu xilaafa ma huwa alayhi fi lxaqiqa fa huwa mulxaqun bil bidaa cest yi jàll yépp ci leeral bidaa la jëm mm-hmm. waaye yii di ñëw mi ngi dellu ci ñetteelu cosaan bi kon moo di euh, dëjërle ak dëgër aw fit ci ay mbir yoo xam ne xëy na mën naa bañ a doon biddaa moom ci boppam waaye boo ko defee mën na laa yóbbu ci biddaa mm-hmm. boobu bi ci jiitu kon mooy jëf loo xam ne daggan na ci sharia sharia santaane na ko waaye néewul dafa war mu ñëw fekk nam mel mu soppi ko jëfe jëfin woo xam ne day tegtal leneen lu bokkut ak loola maanaam dafa doon sunna daal mu di ko jëfe ci noo xam ne ku ko gis da nga naan lii dafa war wala mu doon lu war mu di ko jëfe ci noo xam ne ku ko gis da nga naan la kooku day soppi attib sharia su ko defee kooku dañ koy ilxaaq maanaam dañ koy yéegal ci biddaa kon loolu mooy lan moo di képp koo xam ne fekk na loo xam ne lu war la wala luñ sopp la mu di ko jëfe-jëfin woo xam ne ku ko gis da jàpp ne lii warut wala soppuñu ko ngir wayafal ku mu ko wayafal wala mu wane ne sax dañ koo sib wala mu wane sax dañ koo araamal kon loolu lépp ànd ak ne mooy yàlla la dañ koy yéegal itam ci biddaa léeg-léeg nga gis ñoo xam ne day am sunna yu sax yu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay sunna yoo xam ne xeeti jaamu yàlla lu yu sax jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis lenn ci boroom xam-xam yi wala ndongo yi sax mm. ñu gàddaay sunna yooyu lu tax ragal ñi nga xam ne xamuñu xamuñu wala miinuñu sunna yooyu xamuñu ko ñi di la askane xeeti askan yi hmm. ah nangam kat su ma ko defee ñoom dañ may ŋàññi wala dañuy wax ci man dara wala dañuy defee ne dama indi lu bees te yow leer na la ne nangam jooju ngay wax sax na jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeeti jaamu yàlla. Hmm. loolu nag amul benn werante ci ne njuumte la eh, bokk na ci ni wan ne njuumte la moo di yow mi xam ne lii sunna la bu sax jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku yow li ñuy tudde alxujja qaamat aleyk léegi daal ngay am xam-xam boo xam ne des na la ko laaj ndax kat ginnaaw xam nga ne loolu sunna la du dagan mukk ngay bàyyi li nga xam ngir ne diw réere na ko wala diw xamu ko wala diw miinu ko ndax kat euh, seenug réere ak seenu ñàkk xam du soppi li nga xam ne mooy xam-xamu boroom xam-xam yi maanaam jahlul juhala laa yugayiru ilma al ulama loolu boroom xam-xam yi di wax ña réer seenug réere warta mën a soppi la boroom xam-xam ya xamoon ñaareel ba moo di su fekkee ne yow mi bokk ci ahlu sunna gëstu nga ba xam ne lii sunna su sax la ñemewoo ko koo jëfe wala am nga looy wattandiku ci jëfe ko ngir ne e, diw dana ca wax nàngam wala danañ defe ne nàngam la wala danañ ma lor ci ay wax wala ci ay jëf su fekkee noonu la ñi nekk ci sunna di xalaate wala noonu la ñuy jëfe kon kañ la sunna di tasaaroo foo xam ne tasaaroo wu fa woon ah loolu day wuteeg métatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàngale li leen doon woon lu yees la ci ñoom loo xam ne lu ñu xamu doon la mu di leen ko woon ko jàngal ak teey ak ndànk-ndànk benn par benn ba yooyu yëpp leer ci seen biir ñu xam ko boroom xam-xam loolu moo leen war ci xeet wi su fekkee ne am na yuñ miinul tam doon yoo xam ne yu sax ci diine la duñ na dañ koy bàyyi ngir ragal ku leen ŋàññi waaye dañ koy jàngal nit ñi jàngal leen ko ci njàng wax ak jàngal leen ko ci jëf eh, ñaar fukkeel ba ak benn moo di ida fuila ma huwa jaizun shar'an ala wajhin yuhimu annahu matlubun shar'an fa huwa mulxaqun bil bidaa loo xam ne warut doonut lu war dafa dagan rek kum neex nga def ko kum neex nga bàyyi ko hmm. su fekkee nit ki ñëw na di ko jëfe ci anam goo xam ne daf cee wane waale ne lii dafa war wala dañ koo sopp su boobaa loolu dafay dal di bëgg a yéeg ci biddaa kon daal li ñu tuddee al mubaax shar'an muy li ñu daganal ci sharia ku koy jëfe na ko jëfe ci anam guy wane ne lii dafa dagan waaye bul ko jëfe ci anam goo xam ne day wane ni dafa war wala dañ koo sob loolu moo tax euh, al imaamu bii muy wax mu ne inna annaasa kaanu ida sallu fi saxnin fi saxni min jaamici al basra wa rafacuu min alsujudi masaxuu jibaahahum min alturaab fa amara baadu alwulaati min ahli sunna bi ilqaai alxasa fi saxni almasjid wa qaala lastu aamanu an yatuula alzamaanu fa yadunna alsagiru ida nashaa an masxa aljabhati min athari alsujudi sunnatun fi alsalaa alimaamu Shaatibi dafay nettali mu ne e, nit ñi dañ daan def suñ mosaan julli ci bitti jumaaja ci dëkk bu ñuy wax Basra jàpp jumaa ji da daan fees nit ñi julli ci li wër jumaa ji fekk suufa fa nekk nit ñi suñ dee julli su jóot suñ sëlmalee day fekk seeni jë taq suuf ñu daal di gaaw masaa seeni faxas suuf si taq ci seeni jë mu ne bi ko benn njiit gisee ci njiiti jullit yi nga xam ne dañoo bokkoon ci ahlu sunna ñu ne nañ ma wutal ay xor ay doj yu sew defal ma ko ci suuf si ba ku fi su jootati sab jë du taq suuf ñu ne ko lu tax mu ne sama xel dafa dëlut dara ndax dama ragal ne nii nit ñi def suñu ne asalaamaaleykum li ñuy jëkk a def mooy raay seeni jë su gone juddoo ci loolu gis ni ko nit ñiy defee bu yàggee jàpp ne kon raay ab jë hmm. gannaaw sëlmal ci julli dafa bokk ci sunna yi hmm. xoola ñooñu ni ñu doon aare hmm. <laughs> ni ñu doon aare sunna ak ni ñu ni ñu doon dawe biddaa ndax yooyu boo seetloo da nga gis ne yu ci bari royaatal ñu sëlmalee li ñuy jëkk a def mooy raay seen kër a maasale maasale fi ñu doon sujjóote léeg-léeg nga gis ku koy def sax ba fi mu doon jullee amut benn jeexit bu fa ne ndax benn ak basang lay doon wala mu ket waaye du tee rek loxo bi tàmm na ko faaw mu raay faaw mu fi mu doon jullee ànd ak yeneen yëf yëfaan yu bari nag yoo xam ne nit ñi danañ koy jëfee yoo xam ne suñ sëlmalee day mel ni ci sunnay julli la julli la bokk yor ay baaraam rëdd fi ngay fi ngay fi nga doon sujjóote wala lii la wër léeg-léeg nga ci ku ne fateet aw rëdd li ko wër donte rëddee sax nekkut ci suuf ba muy jeexital waaye ci kaw basang gi lañ koy bind wala ci kaw tàpp bi bu ko nit ñi tàmmee bu yàggee day mujj mel ne lu bokk ci biir julli gi la te mm-hmm. loolu kenn ku nekk gis na ko abu shama dafay wax <coughs> mu ne euh, fa kullu fi'lin euh, aw fa kullu man faala amran yuhimu ma mashruun wa laysa kadalika fa huwa gaalin fi diinihi mubtadiun fiihi qaailun ala allahi gayra alxaqi bi lisaani aw bi lisaani xaali mm-hmm. koo xam ne nee jëf na jëf joo xam ne dafay wane ne lii dañ koo santaane te fekk kenn santaane wu ko maanaam dafa dagan rek nee na kooku ku teengal diineem la ku tàbbi ci biddaa la ku wax waxal yàlla lu mu xamut la moo xam da ko wax ci làmmiñam wala da ko wax ci jëfam ndax jëfit léeg-léeg wax lay doon <laughs> kon daal foofu li ñu fi dégg mooy nit ki war naa wattandiku soppi lenn ci àtte sharia li nga xam ne dafa nekk lu war daal na fexe ba bu mu jëf-jëf juy wane ne warut <laughs> li nga xam ne warut bu mu fexe ba jëf-jëf juy wane ne dafa war eh, ñaar fukkeelu ponk bi ak ñaar moo di kullu maasiyatin amila biha almuqtada bihim fa daharat min jihatihim xata actaqada alaamatu annaha mubaaxun fi ddiini fa hiya mulxaqatun bilbidaa bépp mooy yàlla boo xam ne ña ñuy roy dañoo dem di ko jëfe ba mu feeñ ba ñi nga xam ne jànguñu xamuñu toppe rek moo leen war ñu defe ne loolu ci diine la bokk loolu yëmatul ci doon mooy yàlla képp waaye day àgg itam ci doon biddaa la tax mu doon biddaa mooy defe gi ñu defe ne ci diine la bokk léegi hmm. léeg da ngay gis loo xam ne ak mooy yàlla la mel ne tox mel ne jigéen ñi génn seeni kër te duñ sol ca col yañ war a sol ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne ay mooy yàlla yu bare bare bare da ngay gis ñi jàngul xamuñu tey toppee hmm. di ko def wala seeni soxna di ko def boo leen laajoon li ñu lay wax mooy gis naa diw di ko def su fekkoon ne dafa xaraam diw sangam du ko def wala soxna diw du ko def kon ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy roy topp ci ñoom di leen déglu ci diine seenu sas rëy na lool seen responsabilité rëy na seeni njaboot itam seeni sas rëy na lool ndax lépp loo xam ne ñiy dox ci mbedd mi te xamuñu gis nañ ko ci ñoom ñi di ko jëfe ñoom wala seeni njaboot di ko jëfe dañuy wax ne nangam su fekkoon ne daganut kon diw du ko jëfe wala soxna si diw du ko jafe kon responsabilité bu rëy rëy day daal di doon loo xam ne lu war la kon daal euh, soppi attey sharia ci xeli nit ñi ah, foo ko fekk fu mën a doon rek xamal ne dañ ko yéegal ci biddaa ànd ak ne ak mooy yàlla la loolu moo tax alimaamu shaatibi muy wax ne min huna tustashnaau zallatul aalim mu ne lii moo tax njuumteel boroom xam ñaaw dafa ñaaw ndax su juumee ñi ca des dañuy daal di juum dañ koy roy faqad qaalu salaasun tahdimu diin zallatu alaalim wa jidaalu almunaafiq bilquran wa aimmatun dalluun loolu imaam Shaatibi tudd na ko ci al-I'tisaam waaye athar boobu waxi Omar ibn al-Khattab radiallahu dafa wax ne ñetti mbir ngi yoo xam ne dañuy mab diine njuumteel boroom xam-xam su tarxiisee rek tarxiisaale ñu bari ñaareel ba mooy ab naafiq boo xam ne day werante ci alquran di jiima soppi aaya alquran wala lu ñu wax mu indib aaya jël beneen fëgg ko ci morom ji ngir jaxase ñetteel ba mooy ay njiit yoo xam ne dañoo réer njiit bu réeree ña topp ci moom dañuy réeraale kon loolu moo tax euh, mu doon luy màbb diine comme ni ko Omar ibn Xataab radiallahu taala anhu waxe euh, te daari mii solo ko ci sunnanam moo tax dañuy wax ne zallatul aalimi zallatul aalam zallatul aalim zallatul aalam tarxiisu boroom xam-xam tarxiisu àdduna bépp lay indi kooku mooy e, tënku ñaar fukkeel bi ak ñaar bu ñaar fukkeel bi ak ñett moo di kullu maasiyatin amila biha al aama fa zaharat wa lam yunkirha al muqtada bihim ma al qudrati xata actaqada al aamatu annaha mubaaxun fi sharci fa hiya mulxaqatun bil bidaa gépp mooy yàlla goo xam ne nit ñi jàngul xamuñu ña ngi koy jëfe hmm. ña jàng te xam gis ko ne ca cell hmm. ba ña xamut jàpp ne lii ci diine la bokk ndax su ci bokkul woon diw dana ko tere hmm. loola du yamati ci doon ak mooy yàlla rek waaye day àgg itam ci ñi yéegal ko ci biddaa ndax ña koy jëfe dañoo jàpp ne ci diine la bokk dañuy defe ne su ci bokkul woon faaw diw tere ko kon kooku geneen wetlaati ci responsabilité bu yaatu bi nga xam ne war na ñi nga xam ne ñooy ñi xam moo di suñ gisee ñi xamut ñu nekk ci dara ah, suñ ca ne ci yàlla loolu day mel ni ci diine la bokk mm. kon tënk yi jàll yépp liñ ci jublu mooy ràññee diggante bidaa ak sunna mm. waaye nag am na ñeneen ñaari tënk yu tegu ci yooyu mm. te mooy yi ci des ndax tënk yépp bu ñu ko boolee ñaar fukk ak juróom la mm-hmm. yooyu day melal biddaa di wattandikuloo nit ci biddaa di leeral itam gravité bi nga xam ne bidaa garaaw na ko kon bi ci tegu mooy ñaar fukkeel bi ak ñeent moo di kullu bidaatin dalaala kullu bidaatin dalaala bépp bidaa bu mën a doon ak réer la loolu liñ ci jublu mooy bidaa yépp am na lenn luñ bokkale loolu mooy lan moo di bidaa ak réer la ak cànkute la loolu nag du waxi nit ñi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo ne kullu bidaatin hmm. mën a doon ak réer la réer ku mën a doon itam sawara la réer nag bu ñu ko waxee moo di safaanu gindiku comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee ulaika alladina moo di kullu bidaatin dalaala kullu bidaatin dalaala bépp bidaa bu mën a doon ak réer la loolu liñ ci jublu mooy bidaa yépp am na lenn luñ bokkale loolu mooy lan moo di bidaa ak réer la ak cànkute la loolu nag du waxi nit ñi waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo ne kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar bidaa bu mën a doon réer la réer ku mën a doon itam sawara la yayoo réer nag buñ ko waxee moo di safaanu gindiku comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee ulaika alladina ishtaraw dalalata bilhuda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ñi jël njub jënde ko réer joxe njub fab réer ñooñu ñooy ña perte ñooñu ñooy ñi gindikuwul kon euh, gindiku mooy safaanu bu réer biddaa bu mën a doon na kon ak réer lay yóbbe nit kon da koy soril ak gindiku moo tax al imaamu Shaatibi ci ay fataawaam mu wax ne kullu bidaatin dalaala bi muy wax xadis boobu mu ne fa hada maxmulun inda alulamaai ala umumihi laa yustasna minhu cheyun albatta nee na li yonente bi ne bépp bidaa ak réer la nee na loolu setteewuñ ci dara bépp bidaa ci diine rek ak réer la amul bidaa bu rafet wala bidaa bu rafetul loolu nag li koy dëgëral moo di borom bi tabaraka wa taala moom moo wax ne alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum niamati wa raditu lakum alislaama diina mu wax ne akmaltu motal naa seen diine mottali samay xéewal ci yéen lislaam ji nga xam ne mooy lislaam tey mooy ji ma gërëmloo hmm. buñ xoolee baatu akmaltu danañ gis ne lu am kamaal mu mëneesu ko dolli hmm. ginnaaw diine ji mat na ndool leen mëntu am ah itmaam nag ndool leen mën na ca am hmm. moo tax xéewali yàlla lu bari bari bari su ñëwee rek day dolli ko fu mu toll day yokk wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha téewal yàlla yëmut fenn waaye nag ak maltu moom bu ko xasee wax mat na moo tax euh, alimaamu shawkaani euh, ci téeréem bu am solo bu ñuy wax alqawlu almufid fi lijtihaadi wa taqlid day wax ne fa ida kaana allahu qad akmala diinahu qabla an yaqbida nabiyahu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam fa hada alrayu alladi axdasahu ahluhu bacda an akmala allahu diinahu in kaana min addiini fi ictiqaadihim fa huwa lam yakmul cindahum wa hada fihi raddun lilquran wa in lam yakun min addiini fa ayu faa'idatin fi lishtigaali bima laysa min addiin mu ne ki sos dara indi ko ne lii ci diine ji la bokk wala mu indi ko nee na gannaaw boo xamee ni yàlla mottali na diineem ba jël ab yonentam ki sos xalaat ba indi ko gannaaw boo xamee ne diine ji mat na su fekkee ne loolu ci diine la bokk dañoo fas na ñoom ci diine la bokk kon loolu li muy tekki mooy diine ji matul ma ginnaaw yow lii nga indi wax na ci diine ji la bokk yonent ba ak i saxaabaam xamuñu ko daawuñu ko jëfe mm. kon yow dangaa wax ne la yàlla ne woon diine ji mat na kon yow matul sa jëf day wane ne gëmoo loola mu ne loolu wa hada fihi raddun lil quran nee na loolu day weddi alquran mm. ndax yàlla ma woon al yawma akmaltu lakum diinakum mm. su fekkee nag bi mu ko indee ba noppi téewul dafa fas ne diine ji moom mat na waaye lii moom xanaa dama ko rafetlu rek indi ko ngir bëgg a indi ndolleen hmm. nee na su fekkee ne loolu bokkul ci diine kon diine mat na te loolu amul nee na kon ban njëriñ moo am ci nit ki di ittewoo loo xam ne bokkul ci diine ji hmm. ko wax ju sew la ju xóot la joo xam ne hmm. mi ko teg ci xam-xam bu dul xam-xam bu woyof moo tax euh, ibnu rajab ci xadisu jaabir an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu wax ne wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ibnu rajab daf ne lii yonente bi ne kullu bidaatin dalaala kooku ci jawaamiul kalim la bokk hmm. waxi yonente bi nga xam ne dañ koy gàttal mu làmboo njëriñ yu bëri yoo xam ne du jeex hmm. nee na laa yaxruju anhu shay hmm. kooku dara génn ci lépp bidaa bu mu mën a doon rek ginnaaw ci diine la kooku ak réer la mu ne wa huwa aslun azimun min usuli diin nee na benn tóor bu mag a mag a mag la kenn lu réeréer la ci kennuy diine hmm. kon ku bëgg a màbb kenn loolu dafay mel ne danga bëgg a màbb diine mooy ubbi buntu hmm. buntu biddaa léeg-léeg nga dégg nit ñoo xam ne dañuy taxaw ne la biddaa kat am na biddaa yoo xam ne dafa rafet hmm. yoo xam ne ci biir diine ji la bokk ba mënees na koo jëfee waaye li wér mooy biddaa bu rafet ci biir diine ji moom amul ndax biddaa bu rafet li muy tekki mooy sos loo xam ne amul woon ci diine ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam nga ci jaamu yàlla yi euh, su ne euh, loolu dafay doon loo xam ne da nga ko bëgg a boole ci diine ji te bokk ci woon mm. kooku munta rafet mukk mm. ndaxte benn rafetlu gi nga koy rafetlu rafetlu diine lay doon wala mu doon rafet rafetlu xel mm. su fekkee diine nga ko rafet loo ngaa bëgg a wax ne am na dalil buy wane ne rafet na ci diine ah dañ lay wax rek ko haatu burhaanakum in kuntum saadiqin andi lay wi wane ne loolu diine rafetlu na ko soo indee layu diine moom kon doonatul biddaa ginnaaw am na dalil ci sharia hmm. su boobaa ci sharia la bokk waaye tuddatul biddaa hmm. su fekkee sa xel rek nga ko rafetloo nag dañ lay wax ne dangaa yorom xel keneen yorom xel keneen yorom xel xel yi dañuy jooyoo hmm. loolu moo tax ñu aajowoo wax yu mu xet li leen kon su fekkee ne nit ki ci boppam day rafetlu dara tey bu ëllëgee mu ñaawlu ko kon mu ne suta sukkandiku mukk ci ne xel mooy rafetlu wala mooy ñaawlu diine rek mooy rafetlu wala mu ñaawlu mhm. kon loolu moo tax abdullah ibn omar radiallahu taala anhu muy wax ne wala anhuma mu ne kullu bidaatin dalaala wa in raaha nnaasu xasana bépp bidaa nee na ak réer la donte nit ñi sax dañ koo gis mu doon bidaa bu rafet ci seeni xel mhm. kooku mooy euh, euh, tënk boobu mhm. tënk bi ci mujj ci gàttal moo di kullu maasiyatin kullu bidaatin maasiya wa laysat kullu maasiyatin bidaa loolu lépp ci leeral Euh, biddaa ak tolluwaayam moo ko tax a jóg moo di bépp biddaa ak mooy yàlla la waaye rek du cox gi ne mooy yàlla gu ne biddaa la kon biddaa su fekkee dañ koy xool ne borom bi tabaraka wa taala daf ko santaane wut ki ñëw di ko jëfe kon kooku mooy yàlla la kat lépp lu yàlla tere jëfe ko mooy yàlla lay doon waaye nag loolu tekkiwul ne gépp mooy yàlla gu nit ki def gu mën a doon rek biddaa la ki nga xam ne dafa ñëw di naan sàngara wala yaasu billahi wala muy njaaloo kooku mu ngi mooy yàlla waaye nag loolu kenn du wax ne biddaa la lu dul su fekkee nag ak réer àgg na ci réer àgg na ci moom ba mu jàpp ne mooy yàlla yooyu sax jaamu yàlla la ci moom su boobaa nag mooy yàlla lay doon ànd ak nekk biddaa itam kon daal ki nga xam ne dafa nekk ci biir biddaa xuus ci kooku mi ngi mooy yàlla mi ngi nekk ci biddaa itam kii mooy yàlla nag moom mu ngi mooy yàlla rek waaye amaana mu nekk ci biddaa amaana mu ñàkk cee nekk waaw ah. su fekkee ne dafa jàpp ne mooy yàlla gi jaamu yàlla la bu boobaa. Hmm. Eh, ma ngay mooy yàlla ma nga nekk ci biddaa itam. Hmm. loolu moo tax comme niñ ko jiitale woon mooy yàlla muy maasiya moom biddaa ko gën a garaaw. Hmm. moo tax Sufyaan Athawri rahimana allah wa iyaahu muy wax ne al bidaatu ahabu ila iblis min al maasiya mu ne biddaa moo gënal iblis mooy yàlla. Mhm. ndax ki nga xam ne day jëfandikoo mooy yàlla gi day naan sàngara wala day def loo xam ne lu baaxut la mhm. moom yëg na ni lu baaxut lay def jamono yone rek mën naa tuub waaye ki nga xam ne dafa jàpp ne moom ci topp yàlla la nekk mhm. topp yàlla moom di ko tuub li fekk amul xéewal wala mu am tawfiq bu ko yëgal ne moom lii mu nekk ndekete woo daf ko jàppe woon ak topp yàlla waaye mooy yàlla la mu tuub euh, li fekk àggut ci tawféex jooju mm-hmm. euh, du tuub mukk mm-hmm. kon euh, defe naa ne tomb boobu mm-hmm. moo di tënk bi mu joon ci tënk yi mu des nag ay mbir yoo xam ne xëy na ci beneen jataay bu nu ko suñu borom tabaraka wa taala moo di kañ la ñuy àtte nit ki nag ne kii mi ngi ci biddaa kañ la ñuy àtte nit ne kii mi ngi ci biddaa loolu insha allah ci beneen jataay dinañ ko àggal defe naa ne li des waxtu yu bëriwut kon Cheikh Ibrahim euh, <coughs> jazakumullahu xeyran euh, jàpp naa ne waxtu wi moo xat waaye euh, loolu ñu jot leeral ci tomb yi desoon ci tënk yi jàpp naa ne leeral bu am solo la kon ni ñu ko gisee mbokk yi juróom yoo xam ne ku ci sukkandiku euh, bu la yàlla defalee tawfiq da nga mën a xàmmee lan mooy biddaa kon incha allah comme waxtu wi dab nanu ni mu ko waxee des nag tomb yu am solo mooy tënk yu ñuy mën a xamee ni kii moom ci boppam nitu biddaa la wala mi ngi ci ay biddaa ndax même régal bi mën naa am lu ko ci tuuse ba noppi mu am ay ngànt wala am ay yeneen i lay yoo xam ne dana ko mën a layal waaye nag tomb yiy daje sart yiy daje ci moom bañ mën ne kii nitu biddaa la ba xam nu ñu war a jëflanteeg moom lanu lislaam sant ci moom kooku itam lu am solo la kooku moom la ñuy war a euh, jotliku incha allah bu nu ko yàlla mayee ci waxtaan wi war a ñëw ñi nga xamal mbokk ni mbokk yi itam ne mboolem li ñu fi waxtaanee ku ci am loo xam ne lu ko lënt la wala lu mu bëgg a gën a leeru la bu ko neexee mën naa bind lettre euh, poste ko ci boîte postale 26 081 Parcelles Assainies 26 081 wala mu indi ko ci daara ji ci unité 13 wala mu andi ko ci tasjilaat bi nekk fële ci unité 19 dend ak euh, wetu école Dior yooyu yëpp su fa andee lettre bi incha allah. wala ci rajo bi sax bu ko fi indee moom itam adressé ko émission bi incha allah danañ ko ci defal ay leeral ci la nga xam ne moom la cay laaj incha allah kon nag ñu ngi leen di jox daje benn alxames suñu mbokk Cheikh Tidiane Diallo moo nekkoon ci xarala gi eh, seen mbokk Ibrahim Khalil Lo ànd ak docteur Mohamed Ahmed Lo ñoo leen doon defal minbarul islam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.